Euh, salaamaaleykum internet lu Sénégal alors tey ñu ñëw fii Sud FM seetaan fi ñoo xam ne nag trois lañ trio lañ mais kenn ki présenté émission bi euh, émission phare lañ sénégalais ñu ngi koy seetaan mooy ndekki li ani ñoom oustaz ani ñoom par pour man oustaz na ma ñëwee dama fi dem leen si fekk. non eh non oustaz yi bàyyi rek ma libéré leen. parce que non bu ñu fi nekkoon instant bi xam nga dañ may perturbé ba du ma mën a interview donc moo tax <laughs> oustaz Maodo ak oustaz Mbacké Sylla bàyyi rek ma libéré leen. et puis ñoom dañuy bëri yitte donc c'est bon. <laughs> am contentement ñëw fii fekk si la fii waxtaan ak yow euh, point yu bari. ma hmm. bàyyi da nga nekk internet yi muy. jërëjëf jërëjëf maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di nuyu mbokki internet yi ak di rafetlu seen liggéey ah, seen job nice na trop Sénégal euh, donc euh, sénégalais yi ngi leen di suivre même au la e bu faites du bon et on vous en remercie donc mbokk yi bismillah. Mm-hmm. alors Nicolas bu ñuy wax Nicolas kenn dootu la présenté parce que mm-hmm. musique sénégalaise am nga am nga rôle boo ci joué surtout euh, rap Galsen. Mm-hmm. ci émission Real One et tout donc euh, su ma la doon wax tey Nicolas. tey su ma la doon wax Nicolas rek euh, instant bi situation euh, liggéey bi nu mu demee lan euh, nga may wax. ah fii sud sud maa ngi fi depuis euh, maintenant bientôt cinq ans maintenant. Mm -hmm. ouais et euh, voilà c'est expérience la comme bépp expérience. comme mm-hmm. ni ma jotee am yeneen expérience ak ñeneen feneen donc euh, sud c'est c'est une autre expérience aussi boo xam ne maa ngi koy apprécier à sa juste valeur parce que sud c'est c'est quand même une grande maison. Euh, bi ñu ma soxla euh, woolu ma nee ma dañ ma soxla pour ay innovation donc et, et parce que sama talent mais aussi pour ma indi indil leen lu bees donc il a fallu réfléchir il a fallu créer et euh, j'espère que li ma jot a moo xam ak euh, oustaz yi moo xam ak yeneen yi ma jot a def euh, nit yi apprécié nañ ko quoi donc en tout cas on a essayé de de de créer pour joxe beneen souffle également par rapport ak animation matinale bi justement ak ak ni mu doon demee ko d'accord de Rio Luan à Ndekili Nicolas ba tey dañ koy déglu. Mm-hmm. secret lan la longévité nii Nicolas tout le temps le matin euh, dañ koy déglu Riel One tamit ba mu doon daw euh, RFM dañ ko doon déglu lan mooy sa secret. I don't know je sais pas. Mhm. très honnêtement c'est-à-dire que euh, par exemple yaa ngi tudd Riel One Riel One ba ma créer c'est une émission hip-hop donc déjà c'est par rapport ak li may def fii. Mhm. c'est tout à fait opposé. même si bi may def Riel aussi parce que moi j'aime de à chaque fois su may émission di am contenu. man j'aime pas du tout comme j'ai toujours dit je ne suis pas un poseur de disque man damay bëgg lu may def muy am contenu pour que nit yi di am aussi lu ñuy déglu lu intéressant quoi parce que ñëw rek di teg ay son noonu euh, c'est pas intéressant déjà que man du ma teg rek déjà bu may teg son sax damay documenté wu pour xam son bi kañ lañ ko créé ban at la ci yan condition la yan circonstance xam nga pour mën a informer nit ki euh, ki may déglu du ñàkk am na kenn ba la ñaar koo xam ne xamul woon loolu au moins ma informer ko quoi euh, ensuite voilà toog ceene am ñoo àndal moo xam chroniqueur la wala yu demee noonu ku ci ne indi sa xalaat ak sa gis-gis day def débat ci nekk boo indee sa gis-gis ak yooyu noonu débat bi day ku ci ne di nga mën a euh, gis par exemple ci ci Mbacké Sylla puisqu'on parle d'aujourd'hui Mbacké la loo xam ne euh, li muy wax ça correspond à ce que li yow li ngay science euh, wala keneen koo xam ne day gis ne Maodo li muy wax moo gën a correspondre ak li muy ci voilà noonu laa ko defe woon à l'époque ci Réel One ak à l'époque j'avais pris Girls il y avait Mef aussi que j'avais j'avais pris à l'époque ci ci Réel One ñoom ñoo ma doon gunge en tant que chroniqueur quoi jusqu'à ce que voilà demee nii. <laughs> dañuy taxaw ci émission boobu Real One émission boobu nekkoon na lu ñu gënoon suivre au Sénégal mm-hmm. euh, loolu succès boobu émission bi amoon xëy na li ngay wax ne particularité bi nga ci apporté woon la mm-hmm. wala dafa amoon leneen loo xam ne de plus euh, amoon na émission bi ba tax sénégalais di ko doon déglu. boobu sieste lañ daan def wala mais Real One nit ñi dañuy toog teg seen ataay di ko déglu. Mm-hmm. c'est ça et puis euh, lu ñu bëri xamul peut-être xam nañ ko mooy challenge la woon à l'époque dama agsi Hmm, bu fekk bu fekkul Boubacar Aksi parce que Boubacar à l'époque il a Walf euh, ma Aksi gars yi ne voilà euh, dañ ma bëgg denk dénk après-midi bi mais après-midi bi euh, on a un problème parce que RFM mu ngi doog doog a juddu te Jules Junior mu ngi doon bomb bu baax a baax ca Walf ñu ne ma donc Black Label moo teg tànk instant bi il va falloir nous créer quelque chose de kii donc man j'avais le défi euh, non seulement de, de me faire connaître en tant qu'animateur hip-hop parce qu'on m'avait connu en tant qu'animateur à Radio Nostalgie à l'époque mhm. euh, beneen contexte la woon ma war a fël la fu bees créer lu bees euh, et imaginer ko et tout mais en plus ma ma ma am benn concurrent bu bu taxaw quoi boo xam ne il fallait vraiment que je trouve les arguments pour mën ko mën ko mën a jël place am quoi mhm. donc euh, c'est un travail de longue haleine tout comme je l'ai fait ici à Sud travail de longue haleine nit yi nga bu ñuy commencé di accrocher di accrocher di accrocher au d'un moment dañuy gis ne lii c'est du réel quoi comme ni ma ko à travers réel wan damay gars yi dañuy ça c'est du vrai du coup dañuy dañuy accrocher wu il a fallu créer une nouvelle émission créer un, un titre créer un slogan créer... Créer, faut... Euh, oui en fait c'est, c'était ça pourquoi d'habitude dañ may laaj lu tax lu tax euh, euh, yóbbu woo sa sa sa émission ma ne non c'est-à-dire que j'ai les documents mais bu ma ko yóbbu ban sens la am cest bu ma ko yóbbu woon tey réel woon j'ai pas envie de ça moi aujourd'hui on perpétue cette émission à travers ñeneen ñu koy continuer euh, bien qu'elle m'appartienne mais ça me fait plaisir de voir que au moins mu ngi mu ngi continuer. mais émission bi yow yaa ko protégé yaa moom émission maa lay tegal nii donc euh, émission bi maa ko moom mais. sama fierté tey mooy mu ngi continuer donc bu ma ko bu ma ko yóbbu bu ma leen laajoon ne leen delloo leen ma suma émission tey dootoo leen dégg émission bi et doonu ma neex parce que amul sens quoi madame rek yóbbaale ma non je préfère laisser ça là-bas. Euh, et il le continue et c'est toujours un plaisir pour man bu ma ci bu ma ci dajee di ko di ko déglu fil. nan nga gisee Real One parce que bon. Kadi sama gaayan la mais foofu foofu wax li ñuy xalaat Nicolas Nicolas ba mu jugee Real One ba mu génnee foofu noonu la émission bi xaw a un peu lawle instant bi dañ ko déglu ba tey am na rubrique ba tey mi ngi mm-hmm. nice ba tey mm-hmm. mais mais Nicolas la ñu soxla woon ci tàmmoon nañ la daal tàmmoon nañ la ci émission boobu ba nga demee un peu dafa dafa perdre mais loolu nag loolu nag siste boo seetloo c'est c'est c'est partout et c'est dans tous les domaines c'est-à-dire que si dara euh, c'est toujours délicat. mais Kels et sa bande ils le font bien. Ouais. c'est-à-dire que man leen rek laa leen mën a kii mooy euh, continuer leen ci innovation yi c'est-à-dire euh, voilà l'émission la base elle est là maintenant à vous d'écrire la, la suite de l'histoire moi j'ai démarré une histoire bàyyi naa leen euh, le le relais maintenant à vous de continuer euh, cette cette cette histoire là mais pour la continuer il faut pas rester euh, scotché en 2000. Parce que 2000, 2003, 2005, tout ça, c'était avant. Aujourd'hui, il faut penser à, au présent et penser au futur. Et pour ça, c'est à eux de créer des innovations. Ça va coller, de nous dénaturer. émission bi a dinañ indi chaque fois et ça très important donc loolu laa la ñuy encourager quoi. <laughs> départ RFM pourquoi mosoo si prononcé wu wala boog papa la on parle très souvent et il me donne beaucoup de de et tout ça donc euh, voilà il n'y a tellement pas eu de soucis que j'ai pas besoin d'en parler. mais am na ay départ. am na ay promotion sa musique papa tout le temps. non <laughs> euh, Nicolas maintenant dafa changer émission bi. mais non moo tax foofu noonu. <laughs> dama lay wax benn affaire euh, fii ma nekk nii sud euh, suma directeur reproché na ma ko souvent nee ma mais sa papa artiste la lu tax doo de promotion ma ne ko mais parce que aussi il n'y a pas que lui et puis en plus ça va être gauche que ma nekk animateur ba pare di def promotion. bon moom artiste la comme tout un autre comme euh, beneen artiste donc je préfère privilégier le fait que euh, artiste bu nekk day dama la ni yemale au même pied d'égalité quoi mm-hmm. plutôt que kii non il y a eu très honnêtement il n'y a eu aucun problème cest que man benn instant euh, moi j'ai un problème c'est que moi je ne sais pas stagner man damay bëgg affaire yi des fois di bouger di yëngatu moo tax ma lay wax sànq waxu innovation mm-hmm. j'aime pas les trucs qui stagnent bu demee ba benn benn instant dafay nekk routine ci man ça m'ennuie comme <laughs> quand ça m'ennuie je dis bon ok il faut que je passe à autre chose c'est tout simplement ça j'aime pas par exemple tey bu ñu ma neewee oui tu animes telle émission depuis depuis vingt ans ou trente ans ça va me choquer parce que je vais me dire depuis ans man maa def la même chose. même chose ça va me choquer par contre euh, le fait d'avoir animé treize ans Real One ma génn ci contexte boobu ak cadre boobu ñëw ci beneen cadre ak beneen contexte mhm. euh, Sud FM où je parle d'actualité où on débat avec avec des journalistes professionnels et cetera voilà mhm. donc c'est euh, mooy li ma la wax sànq c'est l'opposé et euh, et ça me plaît quoi ça mhm. kon RFM yow yaa démissionné waaw te dara xewul daara xew <laughs> maa ngi leen di nuyu au passage puisque saa ma fa demee ñu xëcc sumay nopp eh, dellu si sa gaale eh, yow kërëb kërëb donc waa RFM yëpp maa ngi leen di big up one love. Mm, maa ngi nuyuwaale Kalsi tamit émission bi moom tam mi ngi ñu ñëw ci ndekki li mm. ndekki li nag émission boo xam ne la début bi defe naa danga doon def musique invité mm-hmm. artiste et tout léegi mm. ñu gis changement nag indi ay ñoom oustaz Mbacké si la mhm. indi waale ay oustaz Maodo Faye en même temps journaliste la émission bi changé carrément ñi ñi gën koo bëgg euh, loolu lan la leen dikkee mhm. mooy li ma wax sànq c'est-à-dire que man j'aime toujours innover euh, pour pour tolloo aussi euh, yam ak nit yi li ñu bëgg mhm. c'est-à-dire bu ma ñëwee di def animation je faisais de l'animation au départ je me suis dit ok c'est c'est bien beau ce que je fais mais ça reste de l'animation musicale basique ok et un peu tout le monde en fait qu'est-ce que je peux amener comme touche euh, personnelle buy buy buy yóbbu gars yi ci beneen level. Mhm. j'ai vu que Oustaz Maodo Faye il faisait ses ses trucs de 11 heures euh, mooy actualité internationale. Mhm. et à chaque fois day pare rek jóg quoi. benn day ma ne ko mais Oustaz pourquoi est-ce que doo ceene ñun ñu continuer quoi def débat waxtaan ci et tout mu ne ma ci yow la des. Parce que, euh, en fait, il faut savoir une chose, c'est que Oustas Maurofei, on se connaît depuis l'époque de Nostalgie, euh, Donc, okay. ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, sur une communication, sur une dialogue, on fait easy, on fait Donc, avec plaisir et tout ça, Donc, à chaque fois qu'il terminait son inter, moi, je me interpellé une à deux questions d'actualité, me répondre si en tant que journaliste, mhm. et puis on avance. Quand ça a commencé à coller vraiment, et qui me l'a validé, qui m'a dit, bon, oui, dans ce cas, on dem. Donc, les deux premières années, j'ai commencé avec Manak Mauro Faye Cassette. Donc, nous pareil, on fait nos trucs et tout ça, etc. Je me suis rendu compte que non seulement les gens commençaient à apprécier, mais qu'en plus, j'avais un, un, un, un, truc à jouer sur le, du point de vue digital. Euh, parce que, étant donné que Sud a eu beaucoup de retard sur le digital, <laughs> euh, est en train de se rattraper, heureusement, Et je me suis dit, euh, aujourd'hui, tout se passe sur digital. Oui. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est que vraiment l'émission se retrouve en digital. Donc, j'ai essayé de composer une équipe digitale avec des jeunes euh, monteurs, cadreurs, euh, réalisateurs, etc. Ku ci nekk indi sa touche. Ku ci nekk génn sa euh, sa école ak sa diplôme et tout. Euh, on engage des jeunes comme ça et ils font le, le job. Et comme man, j'aime, j'aime, je, je suis très perfectionniste. À chaque fois, j'insiste sur le fait que la, les vidéos doivent être nickel parce que Nini Setan, etc. Donc, à chaque fois, il a eu, fallu faire beaucoup de retouches jusqu'à ce que ça prenne. Mm -hmm. Maintenant, nous intégrer digital, c'est nous avons troisième année, après ça devient, moi, il m'a 5. Ça de la routine, ça m'ennuie. Mhm. Je dis, OK, je vais intégrer comme ça, va donner un nouveau souffle. C'est là où j'ai vu Mbaké, je lui ai expliqué, mon ami, mais avec plaisir. Donc, Mbaké, première fois, deuxième fois, a collé. moo que Maodo du ñu déggoo jamais et tout ça et ça ça plaît aux gens <laughs> mhm, mhm. Euh, parce que dafay am débat discussion échange et cetera donc et tout de suite gars yi gars yi validé quoi ñu ne donc c'est depuis la troisième année quatrième année donc ñu ngi def ak euh, Maodo ak Mbacké qui sait 2022 peut-être que ñu fël feneen fu bees encore on va voir c'est le notre seul souci c'est que notre temps est très limité mhm. xam gars yi moom la ñuy casse chaque fois oui temps bi dafa limité mais Youssou Ndour waxoon na lu neex du doy et ça je le je le conçois parfaitement c'est-à-dire bu bu bu bëree day soof donc hmm. là le temps limité les deux les gens qui apprécient c'est c'est le plus essentiel et on essaie de de d'innover au mieux. Hmm. est-ce que c'est facile animateur musique di toogal ay ustaas di waxtaan ak ñoom. Hmm. est-ce que c'est facile. très facile euh, ustaas yi dañoo bëri kii de. c'est très facile non c'est très facile c'est-à-dire que c'est justement là où c'est intéressant parce que ñoom. c'est un peu comme Diné ak Jamono euh, bu bu bu bu Walf c'est-à-dire que voilà on parle de Jamono mais on parle de Diné ñoom ils maîtrisent Diné ji euh, moi je ne maîtrise pas grand-chose là-dessus mhm. mais je vis avec mon temps aussi mooy Jamono bi donc euh, li may dund ci ci dans l'air du temps j'essaie de leur refiler ça ñoom tamit temps boobu la ñuy dund ah dunduñu ay année 60 wala année 70 donc ñoom aussi ils essaient d'adapter ça ba nga xam ne li ñu jàng ak li ñu xam ci diine mhm. ñu maîtriser ko dañ koy boole ak lii xew ci jamono ça donne mhm. euh, si émission bi lu ñu bëri apprécier euh, ustaas comme dañuy waaraate dañuy wax ci diine lan moo ci am des fois waaraate bi nañ ma baal mais de ennuyer xale yi. Mhm. mais émission boo koy seetaan. da ngay reetaan <laughs> ci tout à fait c'est ça voilà. je sais pas si vous suivez un peu ce qui se passe un peu euh, c'est-à-dire que genre moom laa doon wax oustaz Matar Sarr bi ma ko invité euh, semaine bi passée mhm. ma ne ko yéen da ngeen nekk quelque part phénomène ci yi parce que vous êtes venu avec euh, du neuf <laughs> ba maa ngi mbalak sax ne yóbbu ngeen retraite pas pas oustaz yi parce que ñoom ils étaient un peu trop carrés ils sont restés kii mais là ay oustaz Matar Sarr oustaz Mbacké Sylla les jeunes les apprécient sur les réseaux boy dañu bëgg Mbacké Sylla comme pas possible tu vois parce que euh, c'est un jeune déjà comme eux il leur parle un langage qu'ils comprennent c'est-à-dire que affaire bi aussi amul amul amul kii c'est-à-dire à moment boy bi ngay waxal mu ngi understand li ngay wax euh, dialogue bi day easy mm-hmm. mais bu fekkee ne da nga ko bëgg kii tout euh, bien sûr il y toujours le respect il y tout ce qu'on veut mais aussi euh, communication dafa grave quoi c'est-à-dire ni ngay wax ak kii ak ni ngay wax ak mënta bokk. donc il y a toujours un moment où il y a une différence maintenant c'est la personne euh, mi def. Euh, communication boobu naka lay communiquer ak sa cible euh, c'est là où c'est important et c'est là où euh, Mbacké Sylla a réussi par exemple Maodo aussi hein mm -hmm. parce que Maodo aussi euh, par exemple moi j'ai remarqué que Mbacké Sylla c'est c'est les jeunes hein quand je dis les jeunes c'est vraiment euh, le Sénégalais lambda il apprécie parce qu'il comprend son, son, message, il comprend la langue, Langage, il comprend. Oui. Voilà, c'est comme ça que lui, il discute. Donc, des fois, il comprend les murs. Euh, Mauro, Par contre, les intellectuels l'apprécient plus. je reçois beaucoup de messages d'intellectuels ay ministres ay ay ay ay yoo xam ne euh, dañu nekk ci yenn sphères yi moom sax xam na ci dara donc dañuy apprécier parce que là c'est plutôt les jeunes et, et leur catégorie et puis il y a de l'information en même temps donc mhm. voilà. actualité ni ngeen koy traité parce que des fois loolu laay wax na day am tuuti humour. nekk lu sérieux mais day am tuuti humour. surtout a ruube <laughs> voilà <laughs> parce que loolu parce que mooy moo koy neexal euh, c'est-à-dire que euh, moi je n'oublie jamais que aussi bu euh, nu ma def yëfu journaliste moi je ne suis pas journaliste moi je animateur donc il a deux professionnels ci diine ak ci journalisme yu ma sekk donc euh, man à chaque fois bu ma leen tëjee maanaam bu ma defee yëfu sérieux ñoom dañuy tëju parce que du ñu mën a suivre maintenant man sama sama côté jeune boobu fën bi indi ay kii jàppal bàyyil doon leen disturb et tout c'est-à-dire foofu ils se retrouvent mhm. bu ñu naroon woon ree ils vont bu ñu naroon woon tu ça nit lañu comme. mais oui c' est ça c' ça mais li ngeen gis sax li ngeen dégg sax ci kii euh, ci direct yi. Hmm. li ci suuf moo ko gën a saf des fois avant d' entrer en studio on a de ces discussions am na yoo xam ne duñ ko mën a wax ci micro quoi dañ koy denc pour ñun. Hmm. mais euh, j' en apprends beaucoup d'eux déjà et anecdote yoo xam ne yu bëree bëri bëri. Euh, hmm. voilà et puis il faut pas omettre une chose aussi xam nga dañu nekk dëkku diine. ñëpp xam nañ ne Maodo Faye. Tivaouane xam nga ñëpp xam nañ ne Mbacké Sylla Touba mhm. donc aussi c'est deux euh, grandes familles religieuses ñoom ku ci nekk c'est de là où tu issu donc ku ci nekk am na lu bari loo xam foofu mais pourtant dañuy dañuy jël sax loolu tegee ko de côté pour mu bañ a fës torop ci ci ci seen langage ak seen i wax on préfère toujours privilégier l'intérêt général plus que plutôt que ku nekk am na foo far mais duñ ko bëgguñu di ko fësal parce que du loolu mooy suñu objectif quoi mhm. donc c'est euh, ci ñëw ci noonu euh, ñu bëri naan euh, politique bi ngeen gën a privilégié ak yooyu noonu mhm. la ngeen di wax loolu ci ah, malheureusement politique bi moo dominé suñu suñu suñu réew mi sa mhm. euh, on n'y peut rien et malheureusement aussi pour nous on reçoit beaucoup de sollicitations des politiques ils veulent tous enfin tous presque mhm. venir à l'émission man <laughs> j'ai eu à refuser deux deux deux invités de marque xam ne dañ ma mais kii ma ne leen mais en fait c'est trop intello bu ma ko invité même si j'apprécie la personne dafay rey émission bi quoi dangay dangay j'ai pas envie de d'endormir moi les auditeurs ou les internautes dama bëgg kii yu jër yoo xam ne bu ñu ñëwee dafa am lu ñuy jox internautes yi quoi mais bu ma la nga ñëw saa yi di nalawloo gars dama naan non non non ça ne m'intéresse pas moo tax ñu am naa ci ñaar yoo xam ne jot naa leen jot naa leen kii mais dama leen ne bon y a des émissions qui correspondent à ça <laughs> par exemple suma émission directeur objection <laughs> du ma parce que je suivi mais sauf que man suma boss c'est ça n'a rien à voir donc je préfère vraiment recevoir des gens yoo xam ne relax et tout ça mais aussi il faut savoir que actualité lay wax malheureusement actualité bi c'est dominé par la politique la plupart du temps donc on est obligé de s'adapter par rapport à ça boo invité keneen tamit pour waxtaane leneen alors que ça ne colle pas à l'actualité ce n'est pas vraiment ça alors que l'émission Euh, en tant que tel bi ñuy recevoir ay invités dañu ne jeudi bi on reçoit les invités qui font l'actualité bu subaa bu nekkee benn mbër comme c'était le cas tout de suite ak euh, le le confrère de Moustapha Gueye qui m'a appelé ci suuf ne ma Tafa Gueye yéen rek lay déglu et tout yeah donc euh, lutte bi lamb ji day def actualité mais Tafa Gueye na ñëw bu nekkee musique bi ñu ne ma waaw euh, Wally Seck Youssou Ndour dañuy def actualité <laughs> dama leen dama leen. ah loolu Oustaz si duñ ñëw. <laughs> ah dinañ ñëw parce que euh, euh, ils ne viennent pas pour pour chanter ils viennent pour parler parce que tamit bu ñu fàtte ne musique tamit au-delà de de l'instrument des instruments. ay parole la léegi paroles yooyu ngay génnee noonu mën na intéresser euh, oustaz yi par rapport ak euh, ni ñu gisee euh, ni nga bindee say woy et tout ça donc tout ça ça ça joue et si actualité même en même temps da ngeen koy traiter actualité de la semaine. et tout ouais c'est ça. d'accord léegi est-ce que amoo mos ngeen am problème ci ngeen ngeen wax parce que yéen seen wax da ngeen koy jaarale si digg bi ah. Mhm. kii bu tooyee ngeen ne diw moo tooñ. xam nga est-ce que mosoo leen ci am ay retours yoo xam ne genre ñu ne leen. façon bi ngeen koy traité c'est trop cru quoi. ngeen di jaar ci digg bi oustaz yi moom ñu amuñu naxasaale. dañuy mm. jaar ci digg bi quoi. Mm. est-ce que mosoo leen ci am retour boo xam ne neexu leen. wala franchement pour être honnête à chaque fois retour yu nice la ñuy am ci ci émission bi. Mm-hmm. les deux seules fois où j'ai reçu des des des des critiques euh, des retours négatifs. Mm-hmm. c'est par rapport à, à deux invités. L'un qui n'est pas venu d'ailleurs euh, monsieur Iyakham Mbaye je crois c'est le directeur général de, du Soleil si si je ne m'abuse euh, jotul ñëw. Euh, pourquoi Parce que qu'est-ce qu'il a fait la veille Je ne sais pas. Mais euh, là, les gens déjà n'avaient pas apprécié Binko annoncé qu'on l'ait invité parce que les gens apprécient de plus en plus l'émission et euh, ils ne s'identifient pas à certaines personnes. Ça, c'est le droit de chacun de dire ok telle personne je ne l'apprécie pas par rapport à ci et ça nekk am nga ci droit euh, l'autre personne c'est ça s'est passé la semaine dernière lui par contre il s'est déplacé il mooy euh, euh, alors j'ai j'avais qui comme invité la semaine dernière euh, c'est l'animateur là euh, Tunkara <laughs> Tunkara est venu mais li ma jot ci ay li ñu jot sax ci ay message de non pourquoi et cetera et cetera énorme donc euh, gars pour 98 euh, pour cent des des gens qui sont intervenus sur Facebook YouTube et toutes les plateformes digitales et d'ailleurs même le téléphone l'a l'a senti gars yi ils n'ont pas du tout apprécié l'invité lui-même parce que euh, en fait xam nga sénégalais tamit bu la xasee jàppal dara là aussi encore une fois am na ci liberté boobu mais maa ngi ci doon waxtaan ak Pape Djibril Fall juste après l'émission mu di ma wax ouais j'ai émission avec euh, avec euh, et cetera ñu ciy waxtaan ma ne ko man nag euh, lenn la mës a def sama main parce que la veille j'avais reçu Oustaz Matar Sarr l'avant-veille j'avais reçu Oustaz Alioune ma ne pour man euh, il faut aussi respecter la liberté de chacun c'est-à-dire que je peux ne pas t'apprécier mais c'est pas pour autant que damay tëj say say xalaat ak say gis-gis quoi donc mën naa bañ a partager say opinion aussi mais cela ne veut pas dire que aussi dama lay dama kii donc du à chaque fois damay may euh, euh, marge bu boo xam ne mën naa invité ku nekk du ma wax damay invité n'importe qui parce que ça va être un peu euh, damay damay yeplu nit ñi mais je veux dire mën naa invité euh, ku nekk par rapport ak euh, say idées et tout ça jàppal bàyyi donc il faut aussi ni ma koy waxee même si on n'apprécie pas la personne on en a le droit mais aussi respecter ses gis-gis et ses opinions et ses choix aussi parce que life bi choix la c'est-à-dire aussi ñëpp mënuñu xalaatandoo de la même façon ñëpp mm. mënuñu gisandoo de la même façon donc man j'aime respecter ces avis là yi nga xam ne dañuy diverger ku nekk am sa xalaat war ko wax fii fii c'est une radio du peuple donc mënuma tamit euh, ñëw fekk si radio du peuple ba pare naan kii de mooy wax wala kële du wax je peux pas me le permettre ok loolu tax ma la boobu parce que Gaston exemple na lu mu fi jot a wax mm. euh, ko moo tax ma ne de est-ce que amoo leen des ay retour yoo xam ne day gars yi da leen di woo di leen wax non di ngeen waxee si diw ak. non non non pas du tout. non Gaston euh, am na am na lu lu. non non pas du tout mais bu ngeen seetloo bu ngeen seetloo euh, demal ba ci ba ci biir. Mm-hmm. Gaston c'est après suñu débat bi ci ses propos. qu'il a fait une déclaration pour dire je m'excuse parce que au départ il avait dit je ne m'excuse pas j'assume mes propos loolu la njëkkee woon mais bi mu demee ba affaire bi jël ampleur boobu noonu à travers l'émission d'Ekili euh, je crois le lendemain ou le surlendemain Gaston a fait une sortie pour s'excuser par rapport à ses propos parce que justement comme ça a été relayé il y a beaucoup de gens qui ont dû euh, l'appeler et lui dire que effectivement de tous euh, émission bi s'est suivie sur toutes les régions. C'est ça un peu aussi la force de l'émission, mm -hmm. à travers la radio, bien entendu, parce que euh, on est un peu présent partout euh, ci biir Sénégal. donc ni si bu ñu ko relayer loolu mu mu rectifier Euh, c'est tout, tout à notre honneur aussi loolu loolu c'est bon à signaler mais non mais non en fait euh, la parole elle est libre c'est-à-dire que aussi am na lu xew ku ci nekk joxe si sa gis-gis c'est pas pour autant que dañ dañuy dañuy dañuy faral wala dañuy lii dañuy le dañuy jéem a defar rek ku ci nekk dangay joxe sa gis-gis mm. maintenant on essaie au mieux de ne jamais déraper c'est le plus important d'accord bu ñu génnee ci émission bi nag beneen beneen situation boo xam situation des handicaps gis nañ la récemment def na benn émission ak Pape Cheikh Diallo mm. si di si wax mën nga ci ñëwaat un association bi mu demee ak ni ndimbal bi ngeen leen apporter. jërëjëf maa ngi leen ci maa ngi la ciy sant bu baax di la ci gërëm parce que ça me tient beaucoup à cœur. Mm-hmm. Euh, il faut savoir une chose c'est que euh, man dama am association depuis 2008 euh, euh, ñu ngi doon célébrer je crois il y a un an ou deux nos dix ans d'existence donc association boobu dafa yàgg collaborer ak des centres comme le centre Serigne Saliou de de parcelle des Parcelles Assainies foofu ay orphelins ñoo fa nekk enfin ay bébés ñoo fa nekk dañuy collaborer ak hôpital Albert Royer foofu tamit ay enfants malades dans ce cadre là parce ñetti points principaux yoo xam ne association bi daf ciy yëngatu et puis on a le centre Estelle centre Estelle euh, je suis allé plus loin ak ñoom que ni may ni may collaborer ak euh, euh, hôpital Albert Royer wala euh, euh, orphelinat Daaray Serigne Saliou en fait centre Estelle ça me tient à parce que c'est des enfants atteints de handicap te pour la plupart handicap bi dafay grave def naa di ngeen ko gis ci image yi donc depuis trois quatre ans maintenant ñuy collaborer ak ñoom ñuy am ay soxla ak ay bëgg-bëgg parce que xale yi tamit xam nga xale bu nekk en situation de handicap ñu bëri duñ ko xam mais dafay jafe toppatoo jafe lijjanti. parce que à tout moment il peut y avoir quelque chose xale bi mën na énervé à tout moment doo xam lu ko énervé xale bi mën na dóore à tout moment doo xam lu tax mu dóore et cetera et cetera c'est-à-dire il faut un suivi euh, au jour au, au jour le jour à la minute près donc looloo waral aussi ñi leen di suivre à travers le centre Restel ak yeneen centre ah parce que c'est pas que le centre Restel mais man maa taamu centre Restel pour dimbali leen en termes de communication parce que mënuma dara mais je me suis dit euh, ci li yëngatu. peut-être mën na leen servir et je vois que depuis les années que ñu ngi collaborer je leur sers à ça à chaque fois que je communique à travers structure bi ñoom ils me font savoir que c'est toujours un plus qu'ils ressentent ci ci centre bi et c'est c'est ça le plus important moo tax ma gën a impliqué wu parce que man bi ma gisee ne seen bus bi transporté xale yi et pour la plupart booy yi dañuy dëkk fu sori euh, ñu war a ñëw xëy chaque jour ci centre bi parce que duñu fa fanaan ñu xëyee ñëw si centre bi ngoon ñu war a ñibbi ñi ay Kër Massar ñi ay cetera c'est compliqué donc il leur faut un bus boo xam ne mooy transporter booy yooyu noonu bus bi ñu amoon yàqu na naka laay def pour mobiliser gens yi nit yi pour que ñu conscientiser wu ci loolu bu amee ay autorités yu mën a def dara ñu def ko et cetera man en fait ci loolu ci loolu laa nekk di yëngatu et à chaque fois j'insiste sur le fait que ku ci mën def dara ba dimbali ñu ñu dimbali boy yi ce serait bien laaju ñu dara lu spécial xiifuñu maruñu Euh, c'est juste que ils ont besoin de bus de transport parce que loolu moo leen di moo leen di jàppale quoi ci seen déplacement au jour le jour et ce n'est pas du tout évident pour eux quoi donc dina dina baax ci boy yi dina baax aussi ci ñi leen ci centre bi parce que boy yi bu ñu bu amee benn une certaine façon de d'être et de vivre et d'arriver là-bas mhm. euh, se ressent forcément ci personnel bi aussi et c'est très important mhm. est-ce que autorité yi tamit ñu ngi dégg sa appel ak yooyu noonu est-ce que rapproché nga ci ñoom pour euh, loolu mën a saafara waaw on a on a am na ay autorités étatiques yoo xam ne jot nañu waxtaan ak ñoom mais xam nga comme li ñuy wax malheureusement ci réew mi des fois c'est, c'est les choses sont <laughs> assez politiques mm-hmm. euh, mais euh, on a on ne désespère pas on se dit que voilà quand même ci autorité étatique yooyu même bu fekkee ne ñu bëri dañuy science politique ñàkkul ne am na ñu am xol quand même ne voilà booy euh, c'est une façon de dimbali leen et puis moi je les interpelle c'est la période des fêtes c'est décembre c'est Noël c'est fait pour les euh, gosses et cetera de handicap bu ngeen leen mën a dimbali je crois que c'est c'est l'occasion de faire de faire une bonne action c'est ça l'occasion de faire une bonne action peut-être que bu ngeen ci jàppee yéen autorité étatique laay waxal Euh, puisque ñu ngi jëm ci élection yàlla dina leen defal xéwal. mais bu fekkee tamit ah. <laughs> jàpp jàpp ku mayee bis bi rek nekk maire moom <laughs> xoolal rek ku mayee bis bi daal nekk maire. <laughs> mais en tout cas en tout cas c'est surtout le fait de de de d'interpeller par rapport à cette situation là Estelle. mais sur un plan plus large aussi, d'interpeller par, par, rapport à la situation des, des enfants handicapés. handicapés. Ben, je dis handicapés pour que nous l'air, parce que moi, je, je, je, les appelle toujours en situation de handicap. Mais nous devons nous comprendre. Les euh, boys, nous sommes en situation de handicap. Nous sommes Et la plupart du temps, nous sommes Donc, nous sommes le nimble aussi. La plupart, en tout cas, nous sommes seen parent yi du ñu xam naka la ñuy euh, naka la ñu leen di wala du ñu am moyen wala euh, du ñu am patience et cetera et cetera donc c'est autant de faits qui font que euh, il faut nit yi il faut il faut ñu jàpp ci parce que bu ñu ci bu ñu ci jàppul rek ça devient difficile. xam nga donc situation enfants handicapés yi les situation des enfants vivant avec un handicap. Mm c'est-à-dire que jàppale leen mooy mooy euh, xam ne am na ci ñu leen jur ñoo xam ne bañu ñu leen mais suñu borom mooy dogal dogal na loole naka lañ leen di jàppale parce que parent yu bëri xamuñu nan la ñuy def ak des enfants comme ça wala amuñu moyen wala wala amuñu patience ça peut être possible donc yooyu données yooyu yëpp boo ko jëlee en compte naka la ñuy def ba dimbali euh, yooyu xale te nekk en situation de handicap donc euh, c'est dans ce sens que j'interpelle encore une fois pas que les autorités étatiques parce que am na ñoo xam ne am nañ xol voilà bonne volonté am nañ xol te nekkuñu ay autorité donc ñooñu aussi buñ ci mënee jàpp euh, man ku ma ci interpeller rek à travers Sénégal mhm. je vous mets directement en rapport avec euh, les responsables du centre comme ça ngeen xool naka ngeen leen di dimbalee dina ci baax quoi loolu baax na am na solo alors Nicolas duñ fi ñëw te laajuñu la ci musique sénégalaise parce que def nga def nga euh, animation rap léegi def nga mbalax def nga lépp ban lecture nga am ci musique sénégalaise Euh, lecture du genre. genre lan nga ko gisee instant bi euh, est-ce que mi ngi avancé est-ce que mm, style de musique bi. xam nga man euh, man ce discours là qui veut dire à chaque fois est-ce que mu ngi avancé est-ce que mu ngi reculé. En fait, euh, c'est un discours qui ne tient pas, pour, selon moi, mhm. en toute humilité. Parce que la musique reste la musique. Maintenant, euh, elle s'adapte par rapport ak chaque génération et par rapport ak euh, temps bi fi mu toll c'est-à-dire par exemple euh, tey li li li li euh, li gars yi di dund par rapport ak Wally Seck par exemple sur un plan large wala par rapport à la nouvelle génération de de rappeurs et tout ça dunduñu ko woon en 90 wala en 2000. D'accord. C'est le cas partout dans le monde c'est-à-dire que dans le monde faut pas occulter un fait c'est que boo demee États-Unis States également. c'est la même chose boo demee Europe c'est la même chose ainsi de suite donc temps bi dafay avancer muy am nouvelle technologie lu muy créer euh, boy aussi di di di di science ak di bëgg def leneen tu vois euh, ñii juddu woon euh, soixante-dix quatre-vingt ils ont grandi mhm. peut-être ñu ngi ñu ngi enjoy leneen léegi booy juddu la 2000 jëm kaw peut-être ñoom leneen la ñu tombel et ils veulent aspirer à autre chose donc ces artistes qui sont de 2000 et cetera ils sont obligés de s'adapter aussi par rapport ak public bi de façon générale li mu li muy bëgg ak li muy li muy fil donc c'est pour man amul avancer wala reculer c'est juste s'adapter euh, par rapport ak temps bi ak li mu laaj quoi. Mhm, mais de façon internationale bu ñu bëggee génne musique bi est-ce que style bi baax na fi ñu ko teg nii est-ce que. oui mais ça c'est l'éternel discours ça c'est l'éternel discours je pense que aussi il faut que ñu. est-ce que gëm nga ko benn instant faut que ñu dépasser discours boobu quoi. est-ce que oui l'international. ah mais ñoom loolu la ñuy viser koo ci dégg micro loolu la ñuy viser. est-ce que loolu na ñuy viser. Ah, parce que bu fekkee ne loolu ngay viser je veux dire euh, dafa am lu muy laaj aussi xam nga doo set gaal set bi xam nga di def sa rëmtëm itam ba mu saf ba pare naan maa ngi viser international c'est-à-dire autant rëmtëm itam boobu mooy sa cosaan autant dafa am noo koy travailler pour que mu corresponde à euh, euh, au public international li muy fil ak li muy laaj. <laughs> maintenant c'est ce que je est-ce que. objectif bi war na mën a nekk international forcément et cetera non un artiste reste un artiste il vit sa passion maintenant si sa passion peut l'amener à créer def de la création de l'innovation jusqu'à plaire euh, à un public plus large donc sur l'international c'est tant mieux toujours est-il que euh, faut pas aussi euh, ñu occulter un fait euh, c'est que euh, des publics dañuy diverger euh, boo demee Europe dafa am lu ñuy fiil peut moo xam pop moo xam rock la moo xam kii nga dem feneen e même chose la musique reste la musique elle est universelle nit yi dañuy apprécier li nga def même bu dee malax la mën nañ ko apprécier comme mën nañ ko bañ a apprécier c'est tout maintenant il faut pas rester figé sur ce discours là bi nga xam ne mooy euh, naka la ñuy def pour ubbeeku international et cetera et cetera saa yi def nañ fi acoustique am na ay artistes yu fii def acoustique folk ah. mais ñoom dañ ne paa yi ñoo wax ñoom artistes yu euh, yu bëri chanté nañu ak ñoom defar nañ ñoom ay duo mais mais ñoom booy booy amuñu mais occasion moo présenté wu maison de disque yi. Euh, c'est pas une histoire de chance c'est d'abord une histoire de talent ah. pas. ah kon talent dama ne histoire boo amul talent saa waay. tu bo beau de la chance tu as beau être euh, joli tu as beau mais ça euh, am na loo xam ne du du du kii quoi c'est-à-dire euh, mag ñi ñi doon def ñi def folk acoustique et cetera wala ñi def fusion ak yeneen yeneen style de musique euh, déjà gars yi tànnuñu leen pour leurs beaux yeux dañ leen tànn par rapport à leur talent léegi ñu gis ne am na lu ñu mën a lu ñu war a mën a def et cetera donc il faut un certain nombre de choses pour que nit yi mën le suivre par rapport à telle ou telle chose mais euh, je veux dire s'adapter au temps et, et, et ce que ça demande. Et puis, laisser aussi chacun libre cours, c'est-à-dire euh, musique aussi, art de façon générale. C'est une liberté, c'est une forme de liberté. C'est-à-dire que la personne, tu ne peux pas l'enfermer du genre, ah, il faut faire tel style si tu veux marcher euh, sur l'international. Genre maintenant, la musique Niger, elle cartonne. Ah, il faut que tous les artistes se mettent en mode Niger parce que Momo Dorti international. On est où là Non, les Nigériens, ils ont imposé un style de musique Tout comme d'autres ont imposé d'autres styles de musique ailleurs. Mais toi, fais ce que tu as à faire. Peut-être qu'un jour, ton style là, que tu croyais que du du dox ci international bi mën na dox. La preuve, le hip-hop sénégalais ci ay at ci ginnaaw 90 ba 2000 euh, ça a cartonné sur l'international. Mhm. lan moo ko def. ils se sont adaptés à leur temps et cetera. maintenant loolu mën na ñëwaat quand. on ne sait pas mais la musique euh, elle reste la musique. <laughs> Euh, ci hip hop boobu sax bëggoon naa la ci laajte rappeurs yi si ñoom euh, instant bi ñu ngi leen di décrier un peu ne ego clash. loolu la ñuy def bu ma bu ma bëggee honnête rek ah. Mm. xaw ma ci dara. Ah, instant bi ni ah doo xam. non <laughs> très honnêtement ah, xaw ma ku xew. xaw ma ah, luy bës xaw ma luy je ne sais très honnêtement. Mm. peut-être c'est ma faute aussi je ne suis plus <laughs> le rap sénégalais. je ne suis plus connecté. maintenant nag dinaa dinaa gis su may su may neveu et cetera bu ma demee kër gu mag ma gis ñuy kii di bëggee tel moo xew tel moo eh xew mais loolu graaw na de Nicolas. c'est très bien mais man je ne suis plus. xam nga damay damay bañ a wax aussi lu dul lu dëgg. très honnêtement rap sénégalais hip hop bi instant bi nii je ne sais pas vraiment ce qui se passe à part ma ciy dégg lu tax suivre toogo d'autant plus que amoon nga émission boo xam ne ci loolu la doon mais c'est-à-dire que ci am lu la métti dañ ci am déception pas du pas mooy li ma la wax man je fais une autre émission qui est une émission d'actualité qui me prend quand même beaucoup de temps parce que c'est moi qui coordonne et c'est moi qui dirige tout, toute l'équipe qu'elle soit technique digitale ou chronique etc déjà loolu c'est une chose moi je suis artiste aussi mm -hmm. il m'arrive souvent de sortir par rapport à, métier bi ma tànn mhm. muy musique musique je donc je je je réalise des trucs ci domaine boobu ma tànn etc etc damay aussi maa ngi doon wax keroog Pape Cheikh ne mu naan ma sa livre bi Youssou beneen bi kañ la On espère avec ma maison d'édition L'Harmattan que début 2022, parce qu'on l'avait prévu malheureusement euh, euh, ak donc la pandémie et tout ça on espère qu'en 2022 dinaa publier livre boobu et cetera donc loolu bu ma ci boole je ne suis nekkuma ci temps bi en termes de hip hop très honnêtement su ma ay nièces ak su may neveux. ñoo may teg ci temps bi parce que ñoom ils sont connectés. ah loolu est-ce que talent bi aussi yaa ngi koy gis ba tey par rapport ak ba nga ko ñu ngi am talent ba tey. ah gars yi ñu ngi bokk lu sax man li ma man li ma ciy déglu as tuut dama ne. Mm. man euh, très honnêtement connecté wu ma comme ni ma connecté woon en deux mille deux mille cinq deux mille dix. d'accord ce n'est plus le cas pour être honnête. mais li ma ciy dégg as tuut les gens ont beaucoup de talent maintenant comment est-ce que le public perçoit ce talent-là qu'ont les rappeurs ça c'est une autre chose parce que je ne sais pas exactement qui est qui qui fait quoi. mais okay, ils sont la dégloo tur rap léegi non maa ngi fil maa ngi fil rap maa ngi fil rap mais mais d'une façon que d'une autre façon peut-être que je suis resté old school aussi mais il a du bon dans le old school aussi. d'accord <laughs> yeah. ok question est-ce que sa carrière ñu ngi waxtaan sa jaar jaar am nga expérience et tout euh, est-ce que mës nga si dund wala ñu wax la wala parce que yéen da ngeen ànd ak ak ay rumeur ak wax. <coughs> est-ce que mës nga ci dund loo xam ne franchement mm. metti na la. bof. Euh, àdduna rek ak loolu ñoo ànd donc man mm-hmm. je me du ma du ma du euh, wu ci yooyu c'est tout à fait normal dans la vie de tous les jours yow man keneen ak keneen da ngay da ngay nekk ci sa dund di dund non man siiw ma de yaa siiw <laughs> non je veux dire par la que da ngay nekk ci sa job di job top sa sa kii mais am na loo xam ne euh, mënoo ko bañ c'est-à-dire que dans le cadre de ton travail il va y avoir des gens qui vont t'aimer qui vont te souhaiter le meilleur il va y en avoir qui vont te détester et qui vont te souhaiter le malheur àdduna bi noonu la demee donc man lu ñëw aussi je l'encaisse dama koy encaisser positivement et j'essaie ma ma gagner ci dara ma jàngee ci dara et puis ma le mais est-ce que am na benn benn amul benn amul daara man dara méttiwuma daara yëngaluma dara méttiwuma euh, lu ma li ma la wax lu lu ñëw en tout cas lu ñëw dama koy encaisser ma jël le positif le négatif ma sànnee ne et puis je trace. pas du tout never au contraire c'est-à-dire que. Euh, comme euh, benn phrase tubaab bi nu mu koy waxee tout ce qui ne tue pas rend maanaam lépp lu reyewul daf la war a gën a yokk jom ak doole man c'est comme ça que je prends les choses la vie quel que soit domaine bi ngay yëngatu nangul fakkastalu mais bul nangu daanu. c'est le mais xanaa wax nañ la benn wax boo xam ne metti na la yow. never amul déggoo ma ne dara méttiwu ma dara yëngalu ba et je prends tout positivement c'est le plus essentiel. Mm. ah positif waaw. Ah. positif rek. man gisoo ma ak gisoo ma ak loolu mënul ñàkk yooyu itam life bi aussi day am ay moments yoo xam ne c'est des moments comme le dit Youssou Ndour des moments de moment des moments de faiblesse des mais il faut prendre de ces moments là pour euh, se requinquer yokkaat bopp jom ak doole et puis et nga avancer waaye li may chaque fois dès que quelque chose prend un peu trop sérieux Euh, euh, je je j'essaie de voilà dindi loolu pour que ñu nekk ci lu positif déconner rigoler et cetera. la seule fois où où j'ai craqué par exemple ci suma carrière ou animation yëpp. Mhm. Euh, je crois que c'est la seule fois où j'ai craqué c'est keroog bi mu amee histoire où. je veux même pas revenir là-dessus bi mu amee histoire gayen bi waa jooju rey ay doomam pour une histoire avec sa femme et cetera mhm. Mhm. Oh, parce que comme c'était d'actualité on en a aussi discuté c'est la seule fois où j'ai craqué. Je n'ai pas pu finir l'émission. Oustasi jël ko parce que très honnêtement très franchement daf ma daf ma touché woon tout comme ça a touché tous les Sénégalais. tu mhm. vois et nit nit rek la sensibilité dafay feeñ des fois et tout ça. c'est pour te dire que par exemple euh, Lolé te loolu c'est récent. Mhm. moi j'ai quand même euh, près de vingt ans de carrière ci domaine animation. animation. donc lu récent lii touché ma noonu ba ma craqué en plein direct bay jooy euh, c'est que c'était c'était tout à fait naturel. mais pour ma am lu ma lu ma metti wala lu ma kii non non non lu ñëw. je le prends positivement Sénégalais ñu doon waxal la wax yu garaaw de. non yooyu yëpp dangay ngay fii ñëpp la ñuy waxal <laughs> ku ku taxaw ci ay wax ah. Mm-hmm. tey mosuñu la gis nga répondre ay rumeur ay bu ñuy wax Nicolas. non non non non jaru ko jaru ko pourquoi faire pourquoi faire. Mm-hmm. faut avancer dans la vie faut avancer faut tout prendre positivement. rien en fait la vie n'est pas rose tous les jours man loolu dañ ma koy wax à chaque fois et pourtant man maay ki gën a impatient loo gis pour un oui pour un non damay damay gaaw a péter les plombs ma ne waaw damay yàkkamti quoi man ay et cetera. Mm-hmm. mais euh, mais je prends tout positivement je veux pas que euh, quelque chose m'affaiblisse au point que comme ni ma la ko waxee mënatuma jóg. c'est-à-dire mën nga fakastalu mais bañal bañal tëdd bi quoi bañal kii bi man je me dis dans chaque fois dans ma tête fakastalu naa mooy feebar naa peut-être. mais comment je me relève pour pour euh, pour euh, euh, relever un autre défi c'est ça le plus important. quoi d'accord kontaan nañ ci waxtaan bi am na. mais bëgg naa trop fan ngay tàggatoo ak lan ngay wax say alors maa ngi lay sant d'abord di la gërëm bu baax a baax waxtaan bi am na solo maa ngi sant di gërëm sa équipe technique bi nga àndal. di sa di gërëm également euh, Sénégal parce parce que yéen a ngi def job nice donc maa ngi nii sama waa ji Bamba au passage. di waaw sama sama gain la di béggee Seydina. mooy dagg ah. lépp Bamba mooy dagg <laughs> waaye il nous suit régulièrement à travers Ndekili et ça fait plaisir c'est c'est une occasion aussi pour moi de remercier sénégalais yi def naa at bi on a fait de telle sorte que matinale bi. Euh, ñu imposé wu c'était pas évident quand même nga indi benn émission indi benn concept gis naa ne léegi ñëpp ay jël léegi ay oustaz di leen wërale di leen def ay ay thèmes xam nga <laughs> léegi je vois plein d'émissions yoo xam ne dañuy woo ay oustaz ñu wër leen ñuy waxtaane actualité mais am na noonu la tamit donc sant yàlla ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ci cofeel boobu ngeen am ci ñun euh, di espérer ne à chaque fois on va faire le maximum pour euh, vous satisfaire en tout cas répondre à vos attentes la fin de l'année pour souhaiter très bonne année 2022 euh, tout le monde euh, yal na yàlla def jàmm ak xéwal euh, lép li nga xam ne ñu ngi koy mëbët ci at bu bees bi rawatina ngi nga xamee ne ñu ngi dem ci ay élections yal na yàlla def lu positif maanaam lu gën ci kenn ku nekk lu négatif lii lu bëri di di di di xalaat di di ragal mu bañ ñu arrivé jamais et bon courage à tous ceux qui vont postuler bonne année à tout le monde e jàmm ak xéwal jërë ngeen jëf. suñu match bi nag kañ la suñu mat ak Sud FM dañoo war a dañoo war a match léegi <laughs> léegi directeur directeur Sénégal nu mu tudd. Sidi Mbacke Sidi Mbacke. waaw eh, euh, Baye Oumar Gueye. il faut ngeen gise nag ngeen teg business bi parce que man pare naa annoncé naa ko ba pare. xam naa ne suma gars yi suma gars yi waa Sénégal man moom défense rek laa man moom bal bi man mënuma mënuma ay ay lakk caax yi non mais mais loolu laa bëgg loolu laa bëgg ba xam du ma leen du ma bàyyi ñu jaar ma fenn fenn ah. fenn fenn fenn damay tëj damay tëj kii mais li leer ba leer directeur Sénégal ak directeur sud daa ñu gise bu ko defee booy yi ñun pare nañ euh, li ñuy xaar rek moon ngeen ngeen ngeen jàpp leen dat ah bu defee ñu daal di match dégg <laughs> jaajëf <laughs>